tey jilee tàngoon na lool foofe ca marché Sandaga diggante policier ak commerçant di koy firndeel di xeer yi ngeen di gis noonu ci suuf loolu lépp mi ngi tàmbali ginnaaw bu inakwaa jàppoo ak la sis woote ab bankub loxo bañ a liggéey ngir rekk jàppale ñenn ci ay commerçant yi nga xamante ne tojoon nañ seen magasin yi ji bi ñu jógee mu nekk ab situation bu commerçant yi di nakarlu waaw lu fi jot a xew wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax ñun ay commerçant leen ñëw di ñu jël yëkkati cantine yi lu mat 40 cantine nit nag boo demee ba nga xam ne am nga loolu métti amoo fenn foo ko fajee amoo lenn loo def te jaay nañ la doole parfois nga doxal loo xam ne tamit euh, du doon sa bëgg-bëgg. bi la situation laalaale na itam ab marchand ambulant yi ak ñi yor seen taabal. ñun moom bokkuñ ci garab bi ñun ay ambulant lañ. moo tax bokkuñ ci garab bi léegi nag ci laloon nañ mais dañ doon jéema a xeex ak sa colisée yi après ñun ñëpp ñu laal waaw gis nga moo tax marché bi demee nii quoi wéet daanaka ñu ngi ni doo commencé lalaat xamaguñu ndax den soq xamaguñu ndax duñ soq waaw ñun moom gërëwuñ waaye rek comme ñoom xam naa dañu gis neen ñu bu ñu jéem a yëngal marché bi pour ñi ñi laloon laal li quoi ndax fi mu loolu suñu journée yàqu na amaguñ dépense. ñu ngay woo njiitu réew mi mu gëstu leen. kon nag président bi gëstuwaat askanam wàcc di wax ak askanam ñi ci kaw nañ yërëm ñuy suuf na seet na gëstuwaat askanam. ndoy lay jaaykat di nakar lu teg loxo bi nga xamante ne teg nañ ko seeni naataango ñu toll ci fukk ak juróom ñoom nag lu ñu bëgg rek moo ñu libéré leen ci nu mu gën a gaawee.